ñu xeex contre la troisième candidature de Abdoulaye Wade bi nga xamante ni constitution bi clairoon na ci à l'époque déjà mhm. ñu gis euh, li mu jur xeex boobu mu am ay sénégalais yu jàmbaare Sénégal tax leen jóg ñu xeex ci pour sàmm suñu démocratie yàlla def ñu ñàkk ci seen bakkan lu tollook euh, fukk ñetti sénégalais mhm. bu ñu gisee aussi li ñu wër en Afrique yenn réew yi nga xamante ni day am coup d'état militaire loolu kenn ñaanu ko ci réew ndax day delloo réew réew ginnaaw day bloqué réew baaxut donc kenn ñaanu ko ci Sénégal te boo xoolee yenn ci réew yu bëri yi nga xamante ni dina fa am ces derniers temps en Afrique euh, day fekk euh, ci ginnaaw day am li nga xamante ni moom mooy beneen type de coup d'état nga xamante ni tey peuple africain yi gën nañu ko bañ mooy coup d'état constitutionnel mooy président yi nga xamante ni dañuy am droit à ñaari mandat waaye bu ñaari man daay demee bay jeex ñu xool yan porox ndoll la ñuy aw ak yan tripatouillage la ñuy def ci constitution bi wala yan interprétation yu bees la ñuy def ci constitution bi wala sax changer la constitution mhm. pour se maintenir au pouvoir muy coup d'état constitutionnel parce que ay jamono ci ginnaaw danga daan gis coup d'état bu amaan ci réew ñëppay dugg ci kër yi dem na bëtu mhm. mais de plus en plus da gis coup d'état mu am ay militaire militaire jël pouvoir euh, population yi génn di leen tàccu loolu suñuy njiit euh, dañu ko war a jàngat te xam ni coup d'état constitutionnel yi nga xamante ni euh, moom moo law ci Afrique ci yenn njiit yi loolu moo waral loolu donc ki gis loolu yëpp don mouvement boo xamante ni Macky Sall entre de tours yi ñëwoon na suñu QG bi mu ñëwee euh, traversé Dakar yëpp ñëw seet suñu bokk na ci ponk yi nga xamante ni ñun newoon nañ ko ni tey jii nii yaa ngi ci position bi nga xamante ni Abdoulaye Wade candidature am Sénégal constitution Sénégal permettre ko. Mhm. donc dañu ne tout sauf Abdoulaye Wade tey jii nii ñun jàppalewuñ la sax parce que ci suñu combat lañ nekk suñu principe dañ jàpp sax ni yaa ñu ci fekk. mais dañu bugg rek nga xam ni ponk bii bii ak bii bis boo dem ba falu. Mhm. yooyu dafa war a doon yi nga xamante ni danga koy régler et que jamais au Sénégal ñu delluwaat. ci li ni mhm. bokk na ci mbirum euh, troisième mandat yi mu jox ñu assurance ferme euh, ci diggante gor ak gor comme ni mu ko defee ak sénégalais yi ne bu ma ñëwee loolu lay njëkk a réglé. Ah, dañuy def révision constitution ñu verrouiller ko de telle sorte que Sénégal kenn dootu fi waxati mbirum troisième candidature wala troisième mandat ci enjeu wu développement nekk. bu ñu demee onze ans après après li xew ci. Euh, réforme constitution bi ñu def ci ay milliards pour qu'il y un référendum bokk ci point ponk yu ñu gën a jaay sénégalais yi mhm. pour euh, référendum bi euh, ñu verrouillé nañ ko ku mel ni Ismaïla Madior Fall mu ñëw ci lim ba nul ne peut fois mu wax ko Macky Sall mu wax ko waxaat ko waxaat ko ba bi muy waaja a daagaanaat baatu askan wi ci 2019 ci livre bi mu bind le Sénégal au cœur mhm. page 165 muy muy wax ak sénégalais di leen naan maa ngi nii di ñëwaat di sàkku di daaga an seen baan seeni i baat pour benn deuxième mandat bi nga xamante ni mooy sama ñaareel ak bu mujj ndax constitution Sénégal permettre ma ma daagaan troisième euh, mandat donc mu doon lu leer mhm. bu ñu gisee bàkkan yi rot yépp ci xeexu euh, non à la candidature de Abdoulaye Wade moom Macky Sall mu amoon ci taxawaay sax aux côté de du peuple sénégalais de Y'en a du m ak ñeneen ñu ñëw nag toll fi nga xamante ni tey nii wii nii noonu la ñuy wax ñu gis en Afrique par exemple tey Macky Sall waroon na doon chef d'état bi nga moom mooy porte la question de non au troisième candidature et au tripatouillage constitutionnel en mhm. Afrique. ndax mais mais lan ngeen gis loo xamante ne promesse bi mu leen defal moom laa lay wax mhm. boo xoolee au niveau africain. Mhm. tey y une initiative bi nga xamante ni amoon na CEDEAO. pour que tripatouillage constitution troisième mandat yi en Afrique ñu dàkkal ko Macky Sall ak Ouattara ñoo loolu c'est une première chose ñu jóge ci loolu waxuma sax mbirum képp ku ko wër à chaque fois que ñu wax mbirum troisième candidature ñi nga xamante ni dañuy constitution bi mu validé ko muy non à la troisième candidature au Sénégal ñëpp ñi ko wër bu saa yi ñu ko waxee rek ñu écarté leen loolu waxaatuma ko gis nañu plein de d'exemples comme ça mm-hmm. mais Euh, ci lu yàggut rek ci ginnaaw am na ay compatriotes euh, africains je pourrais dire compatriotes euh, yu fi amoon benn initiative ci benn hôtel de la place benn concert bu privé contre les candidatures les troisième candidatures en Afrique mais dañ leen ko tere un concert privé ñu jóge ci loolu nga xool au niveau de Yanama bi ñu jibalee kàddu bu ko sax jéem bi mu am ay ndaw yaanaamaar yi nga xamante ni dañ defar benn bâche ñu lonk ko mais police dañu mobiliser pour que mu ñëw mu dindi ko non seulement mais dañu ramasse ces jeunes là ñu yóbbu leen keroog ba ci ay minuit ñu ngi commissariat de police boo xoolee autour du président Macky Sall de plus en plus am na ñenn ñi nga xamante ni jamonoy 2011 ñoom ñoo taxawoon avec tout le peuple sénégalais di naan non à la troisième candidature de Abdoulaye Wade ñoom ñoo commencé di théoriser idée wu troisième candidature Macky Sall te waxu ci dara. donc yooyu yëpp bu booloowee nag euh, soxna si mouvement bi mel ni Y'en a marre nekkoon fi 2011 tey mu nekkaat fi dañu war a artu bu ko sax jéem bi artu la. jàmm gën troisième mandat bi nga xamante ni société civile bi ay organisation yu fasantikoo dañu booloo loolu tamit artu la parce que li ñu dund en 2011 bugguñu Sénégal mu dundati ko fii. li nga xamante ni moom la ñuy gis ci yenn réew yi ñuy wër bugguñu mu am fii. waaw tey nag Macky Sall bu fi jibaloon kaddu mbirum troisième candidature malheureusement ci loolu la ñuy yóbbu donc bugguñu yegg ci loolu moo tax ñuy artu euh, bu ko sax jéem bi loolu la dafa am ay signes yu ñu gis yi nga xamante ni dalul suñu xel dalul xelu sénégalais yi les vieux démons de 2011 bugguñu mu ñëwaat fii parce que bugguñu benn bakkanu sénégalais wala. benn sénégalais sax buy am benn xoos-xoos ci mbirum xeexu euh, troisième candidature de Macky Sall. c'est clair. alors euh, yaa ngi koy wax Aliou que ne euh, il faut ngeen wax mais est-ce que du moyen d'existence pour Y en a marre parce que xaalis laaj na la ko sànq jusqu'à présent le président de la République Macky ne s'est pas encore prononcé sur la. Mm-hmm. je pense que c'est pas longtemps caat ñëw na fii man à maintes moyen d'existence non on n'a pas besoin de ça pour bi judd ci contexte bi ñu ko xamee ñuy xeex pour démocratie euh, ñu fidèle à notre ligne 2011 euh, ba tey boo xoolee les bandes quand Y en a marre se prononce on est constant et c'est au nom de cette constance là la ñu taxaw tey pour que ñu artu Macky Sall parce que justement euh, comme ni ma ko waxee waruñu xaar ba yëf yi mu daanu suñu kaw tout de suite nit ñi di nekk dans la radicalité réew mi di yëngu te réew mi soxlawut loolu mm-hmm. comme réew mi soxlawut loolu comme yëngu-yëngu yu amoon en 2011 soxlawuñu ko yëngu-yëngu yu amoon en mars 2021 ñu gis ko fii réew mi yëngu ba kenn xameetul Sénégal mhm. loolu yëpp bëgguñu ko loolu moo tax nag euh, soxna Fatou Abdou mouvement Y'en a marre jàpp et puis d'autres acteurs aussi de la société civile boo xoolee jàmm gën troisième mandat aujourd'hui il y a une trentaine d'organisations de la société civile yi fa nekk ay RADDHO ay Ligue sénégalaise de défense des droits de l'homme ay Afridivistes ay Afrikajom ak ñeneen ak ñeneen ñooñu na ñëpp nag ñi ci ëpp c'était des acteurs de 2011 tey dañu jàpp ni dañu war a artu surtout que et ça euh, Macky Sall waxagul te sénégalais yi ñu ngi koy déglu ñu ngi xaar mais Macky Sall waxul may tey di nga gis Macky Sall te boo xoolee troisième candidature Abdoulaye de li mu jural Sénégal ci ay bakkan yi ci rot nga xool mbirum troisième candidature yi coup d'état militaire yi muy indi dans les pays africains voisins nit ñi ñu teg ci bët bu dee des barons de ce régime là dañuy commencer di théorie théorie théoriser loolu il faut quand même les mettre face à leurs responsabilité parce que jéeye la jéeye googu bu ñu buggee di jubal jibal ay kaddu yi nga xamante ni day encourager Macky Sall à engager le Sénégal vers ça il faut que ñoom ñëpp ñu identifier leen ñu mettre leen face à leurs responsabilités que c'est facile loolu ñu def ko Macky Sall bu leen ci toppoon tey par A ou de toute façon Macky Sall en mars 2024 il ne sera plus président de ce pays et ñoom il faudra qu'il réponde de ça devant la justice sénégalaise et ça c'est une proposition que Y'en a marre va faire à tous ceux qui compte briguer le suffrage des Sénégalais en mars 2000 en, en février 2024 yaa ngi koy wax seen combat la non c'est pas fini c'est pas fini par rapport à ça dama bëgg clair dama bëgg ñu xam ni jéyee gi nga xamante ni troisième candidature Macky Sall mun na ko indi ci réew mi bépp baron wu régime am bi nga xamante ni ci jamono ji loolu da nga ko théoriser bu guddi ci nekk pour que Macky Sall nga koy pousser vers bu ci àndee ba Sénégal mu yëngu fii benn bakkanu sénégalais bu ci roote benn sénégalais rek bu ci amee xoosu xoosu bu soobee yàlla list ñoom ñëpp tàmbali nañ ko d'ailleurs képp ki nga xamante ni yaa ngi ci régime Macky Sall pour sa bakkanu bopp pour say intérêt wu bopp ak sa famille ak sa clan pour gérer tes propres intérêts tu es prêt à ce que Sénégal mu dugg ci guuta googu benn par benn ku ci nekk ku ko wax ci média dinañ ko noter dinañ noter fan nga ko waxee. Ah, ak kañ nga ko on a commencé à recenser parce que c'est trop facile pour des intérêts ku ci nekk ci say bàkkanu bopp ci pouvoir ni mu neexee ak sa famille ak sa clan ngeen bugg rester au pouvoir souvent ñoom également seen menaces yi wala boog li ngeen di wax ni ñoom jàpp nañu ne du mujj fenn li ngeen di wax naan jàmm moo gën troisième mandat jàpp nañu ñu ne loolu aujourd'hui mujjul fenn est-ce que aujourd'hui Y'en a marre comme également les autres organisations de la société civile am nañu moyens yi nga xam ne moom la ñu amoon en 2011 pour mobiliser pour dire non à cette troisième candidature c'est le peuple d'abord qui a les moyens bul fàtte ni Fatou Abdoul euh, esprit moo indi Macky Sall au pouvoir bokk na ci esprit yu fort yu ko indi au pouvoir mooy mbirum candidature au Sénégal dañ ko war a fàtte loolu moo taxoon ñu dem ci euh, référendum bi ñu def réforme constitution sur loolu ñu éclair ñu éclaircir ko mu jeex donc peuple sénégalais boo duggee ci marché yi boo duggee un peu partout bu ngeen defee micro trottoir di ngeen gis ni sénégalais yi dañu jàpp ni mbirum candidature troisième bu Macky sàll loolu warut am et que Macky Sall dafa war a gindi sénégalais yi ci loolu pour de bon ñu nekk sur les défis de développement première chose ñun lan la ñu on est juste des instruments de ce peuple là ay citoyens la ñu nekk ci ay kuréel jàpp ni ci mbirum démocratie en tant que citoyen dañ ci war a am taxawaay te fermeté bi ñu ci amoon en 2011 ak engagement bi ñu ci amoon ak yeneen ak ñeneen moom la ñuy am pour que pour barrer la route. est-ce que dafa am deadline boo xamante ne moom ngeen di jox le président de la République pour qu'il se prononce sur la question. c'est à lui de voir di ci am solo am le dernier mot c'est le président de la République. Macky Sall le plus vite possible il faut que mu adressé wu au peuple sénégalais boo xoolee lettre bi nga xamante ni jàmm gën troisième mandat. Euh, bi euh, bi nga xamante ni kuréelu société civile yu bëri ñoo ko sekk comme ni ma ko waxee bataaxal bi ñu ko adressé dañ ko wax ni ci li mu gën a gaaw il faut que mu jàkkaarloog sénégalais wax ak ñoom pour ne leen ni troisième mandat jéyee gi muy indi ci Sénégal jaraluma ko dama bëgg stabilité ci réew mi bugguma Sénégal mu jaxasoo et puis constitution loolu la wax man wax naa ko waxaat ko kaddu googu dama koy sàmm du ma doon euh, du ma doon candidat en 2024 te xam nga loolu lan lay indi Euh, Fatou Abdoul pour une fois Macky Sall bu amee grandeur boobu mu am mu am mu am cette carrure là ba loolu mu feddali ko parce que li am la ba pare ba ñu xam ni léegi ñu ngi jëm ci ay élections yi nga xamante ni pour une fois ci suñu réew euh, ñu jëm ci ay élections yoo xamante ni du pour sanctionner un président qui va forcer mais dañu dem ci ay élections yoo xamante ni président ba woon la ñuy wax moom day organiser ay élections yu transparentes su boobaa xam nga en 2011 2012 on était tellement sur touche pas à ma constitution non à la troisième candidature de Abdoulaye Wade que opposition bi challenge wuñ leen xooluñu Macky Sall lan la lan lay def lan la kii yooyu yëpp xooluñu ko tey on s'est retrouvé avec Macky Sall bii def pire que Abdoulaye Wade mais tey loolu bu amoon on va dire ok léegi bi nga xamante ni yéen a bugg jiite réew mi à partir de 2024 lan ngeen di proposer aux Sénégalais et puis xool ñoom aussi opposition bi seen i parcours seen i trajectoire ci bi ñu nekkee opposition yan jéego la ñuy teg Sénégalais yi teg ci seen bët mu am benn débat bu am solo ci réew mi pour que ñu mën a tabb pour une fois un président et non sanctionner un président sortant c'est ça l'enjeu pour 2024 Macky Sall bu amoon hauteur bi war mu def loolu loolu lay indi Sénégal mu am mu am vraiment sérénité bu war pour qu'on aille des élections et que vraiment Sénégal fi mu ise drapeau ci démocratie ci yenn yi ba yenn réewu yi vous avez dit que bi ñu ngeen leen adressé ko bu ñu gisee ki nga xamante ne euh, bokk na aujourd'hui ci organisation euh, troisième mandat jàmm moom moo ko gën muy muy Aliou Tine c'est un doyen mm-hmm. est-ce que il a eu quand même parler wala rencontrer le président de la République pour xam un peu lan la naat. non pas à ce que je sache. lii c'est un débat public c'est une question qui concerne tous les Sénégalais bu ñu koy régler duñ ko régler ci ay négliato je ne pense pas que lettre publique la bi ñu adressé au président de la République transmettre nañ ko ko voilà léegi li ma doon wax Fatou dama ciy delluwaat et vraiment wax ko réew mi dal la bëgg mhm. li ñu xeex ci troisième candidature ñoom sax ñu ci ëpp ci ñoom xàmmee naa leen non à la troisième candidature de Abdoulaye Wade bokkoon ci combat bi ñu xam ni loolu war mën a nekk bu ñëwee ba tey ñu bëgg yëkkati fitna googu encore indi ko ci réew mi di pousse le président Macky Sall ci guuta googu nga xamante ni fitna lay yee ñooñu il faut que il prennent toute toute leur responsabilité ne newoon naa leen ni non seulement commencé nañu di leen recenser mais au-delà de ça il faut que tous ceux qui voudraient briguer le suffrage des Sénégalais en 2024 mooy candidat wu opposition il faut que ku ci nekk dina am charte bi ñu établir pour que ñu engagé wu à ce que ñooñu noonu nga xamante ni dañuy bugg yee fitna ci réew mi bugg yenn yu am ci yenn réewu Afrique yi mu am fi lu ñu dundoon 2011 mu ñu dundaat ko ci mbirum troisième candidature bu leen ci Macky Sall toppee ba réew mi mu am yëngu bi mu ci yëngu ba mu am yenn yi ils en répondront devant la justice sénégalaise une fois que yàlla teg loxo pouvoir bi ci loxo keneen tous les candidats ñi nga xamante ni ñoo nekk opposition que ñu engagé wu à ça parce que mënuñu à chaque fois ay bakkan di rot par la par la faute de ñenn ñi nga xamante ni seen i wu bopp rek la ñuy gérer ak seen i intérêt wu famille ak seen i intérêt wu clan peuple bi taxu leen jóg. et et ça c' est vrai probablement yaa ngi répondre mais gis nañu. Euh, le cas de Mamadou Diop entre autres cas yoo xam ne amoon na fi et jusqu'à présent euh, mën naa ne gisuñu le coupable par rapport ak li nga xam ne amoon na 2011. mais non seulement Mamadou Diop. mën nañu xaar que euh, dinañu nekk ay coupable yoo xam ne dañ leen. gis non seulement yaa Mamadou Diop. mais xoolal bi mu rek les événements de de de de ces élections législatives là ay bakkan yu ci rot mais les événements de mars deux mille vingt et un tamit. 14 Sénégalais yi nga xamante ni ñàkk nañ ci seeni i bàkkan Macky Sall euh, le guvernement du Sénégal jëloon ay engagement pour que ñu def enquête yi ci war pour que ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu les responsabilités et ci war ci daan ñi nga xamante ni ñoo ci impliqué ñu def ko ba tey defuñu ko. Mhm. malheureusement mun naa la citer yeneen ak yeneen yi nga xamante ni ay principe la Macky bi muy arrivé au pouvoir sénégalais yi ñu ànd ci foog ni dina soppi doxalin mais malheureusement. ci lu bëri lu jëm ci démocratie euh, état de droit euh, ci mbirum gouvernance malheureusement euh, li ñuy gis tey moo gën a yées li nga xamante ni ñoom sax daan nañ ko xeex ak sénégalais yi en 2011 malheureusement et c'est ça le défi pour l'opposition d'ailleurs mm-hmm. parce que tey bu Macky Sall defoon annonce boobu ba mu leer léegi il faudra challenger l'opposition parce que il n'est pas question aussi que ñu commettre les mêmes erreurs que 2011 il faudra que opposition bi aussi ñi nga xamante ni bugg nañu sénégalais yi ñu tàbb leen euh, en 2024 il faudra que ñu ñu mën a convaincre sénégalais yi nii dinañ doon ay président yi war et que euh, soppi yi ñu bëgg coppite yi ñu bëgg ci réew mi ci ni ñu yoree réew mi que ñoom dinañ ko mën a indi. c'est clair alors euh, balaa ñuy dem ci beneen point bëgg naa taxaw tuuti parce que tout à l'heure da nga ne que kese ngeen pour euh, pour le peuple mais instrument boo xamante ne xaw na effrité wu bu ñu gisee départ yi ngeen am gis également ñenn ñi nga xamante ne am nañu ay problème ak euh, justice tey adhésion bi ngeen amoon en 2011 ci cause yëpp yi ngeen doon am est-ce que vous pensez que di ngeen. mais tey la tey la raw man tey rek ci mais vraiment je sais pas ndax yéen a ngi gis effervescence bi am. autour de la campagne bu ko sax jéem ça fait très mal 2011 11 après que ñu nekkaat fii di wax mbirum troisième candidature neexut ci xol mais boo xoolee effervescence bi ci ànd t-shirt yii nii mais ça se vend comme de petits pains ay sénégalais yoo xamante ni parti politique yi d'habitude dañuy jënd t-shirt di maye mais da ngay gis sénégalais yi nga xamante ni dañu nekk Ziguinchor gis naa ki nga xamante ni mu ngi Maroc dafa ne sama t-shirt dama koy jënd ba pare ngeen joxal ma ko GP mu indi donc nous on est juste un mouvement citoyen maintenant Y'en a marre ñi ko sos les principaux leaders boobu ba tey à part Kilifeu ak Simon pour les raisons que vous connaissez ñoom euh, jusqu'à nouvel ordre leurs activités au niveau du mouvement sont suspendues parce que ñoom ñoo ko njëkk a proposé mouvement bi mu nangu ko mais à part ça euh, tout le monde est amul kenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekkoon dès le départ ngan ko mouvement bi ñu quitté mouvement bi amul au contraire maintenant naturellement comme dans toute organisation euh, am na ñi nga xamante ni c'était des militants ils sont passés à autre chose ñenn ñi ils sont allés en politique mais en même temps il y a un renouvellement am na ñu ci bëri bu ngeen demee ci suñu page Facebook di ngeen gis am na benn formulaire bi ñu def parce que dañu doon jot tellement de d'inbox mhm. euh, di jot ay messages yu citoyens yu bëgg adhérer mouvement Y'en a marre à un moment dañ ne non lii dafa bëri il faut ñu organiser ko ñu def benn formulaire mais formulaire bu ñu ko defee suñu page Facebook on a eu plus de ay mille xawma ñaata sénégalais yi nga xamante ni bind nañ seen tour seen sant seen contact fi ñu dëkk ak mooy seen motivation pour adhérer au mouvement Y'en a marre donc sax aussi leneen li mooy mouvement la boo xamante ni euh, day day renouveler wu avec les générations da nga xool Fadel Balo moo doonoon figure charismatique en tant que coordonnateur du mouvement Y en a marre au de deux mandats il est parti parce que aussi li ñuy critiquer euh, les politiques ñi ñuy jiite la plupart en termes de démocratie interne en termes mais il faut que ñun ñu appliquer ko suñu bopp en premier même dans la société civile day yenn organisation yoo xamante ni c'est le même qui est depuis vingt ans il est à la tête de cette organisation bu demee rek organisation bi dee mais tey Y en Fadel il est parti man je venu et derrière moi il des jeunes yi nga xamante ni xam ngeen ci dara ñoom Abdou Khafor Kane yi parfois même quand vous les envoyez ci ay plateau télé on dit mais non xamuñu ko mais quand ils viennent après les gens ils se rendent compte que c'est des jeunes qui ont a plein donc vient avec toute l'énergie des jeunes yu ñëw ci ginnaaw. di alors pour pour pour combat bi est-ce que